dire que ça peut se faire. Tout à fait. et je pense que y a des choses yoo xamante ne dina nekk benn mot boo xamante ça changer toute une vie. Tout un mot qui peut changer toute une vie. et redoubler l'effort et faire sortir la boule d'énergie positive. bi nga xamante ne mi ngi ci nit ki. c'est très beau. Mm-hmm. mais nag lépp dañ koy mën a waxtaanee. Mm-hmm. bu ko defee nit ñi mën di ko mm-hmm. comprendre. parce que dañuy xool tout le temps antécédent nit ki bëgg foog ne voilà. est-ce que loolu la mais c'est bien. Euh, loolu rek moo tax nit ñi di bëgg ay nit. Euh, su ko defee ginnaaw li mm-hmm. jooy mm-hmm. pour ñun mm-hmm. ñu leen di mën a expliquer ñu mën a rassuré wu loolu bokk na ci li tax ñuy def màkkaan di ko def de façon free ah, ñu koy waxtaanee <laughs> alors ñu ñëw tuuti nag euh, par rapport ak euh, li nga xamante ni moom mooy euh, ci benn sorte source de motivation ci ñi nga xamante ni parfois dañuy dem ba bàyyi yaa ko wax moo tax ma bëgg ñu pëtaxlu fa am na ci ñoo xamante ni tout le temps dañuy jàpp ne femme divorcée tout le temps dafay nekk femme boo xam ne deuxième me lay doon <laughs> te Mia euh, da ngay gis tout le temps koo xamante ni bu génnee ci say ci li muy amaat sax moo koy gënal ci lim nekkoon mm-hmm. donte kenn bëggul divorce mm-hmm. donc mais da ngay gis ñoo xam ne dañ leen dul teg fenn mm-hmm. dañ leen di dañ leen di fowee wala ñu foog ne ñoom ay ay femme facile la ñuy doon surtout nag bu leen yàlla nattoo ñu nekk ci te alors tey ñooñu ban message nga leen di jox alors j'ai un message important à faire passer parce que je porte un drapeau effectivement moo tax ma laaj la ko. je porte tey jigéen yooyu yàlla moo leen teg. nu ñu mel. cest dire fu ñu jóge tey yàlla moo leen ko teg. effectivement yàlla moo nangu loolu. il faut nit ñi nangu li dogalu yàlla. Mm. il faut que déjà nit ñi nangu ko. Mm. alors c'est pas parce que nit am na foo jóge rek que yàqu nga. Mm-hmm. je vois tout le temps des commentaires comme ça sûr, malheureusement euh, euh, du jigéen boo xamante ne dafa jóge ci say rek. que dafa yàqu dafay def lu ko neex ñi am fulla ñi ngi am fulla ba tey ñi xam seen bopp ñi ngi xam seen bopp ba tey ñuy bëgg seen bopp ñu ngi bëgg seen bopp ba tey bien tey am na ñoo xamante ne euh, sañuñu wax ni Mia lii ak lii ak lii parce que ah, gisuñu ko si man mhm. xamuñu ko si man te abadan daay man duñ ko gis donc tey nañ bàyyi di juger nit ñi il faut qu'ils arrêtent je suis mais Sénégal il faut ñu arrêter di juger ces femmes là mhm. parce que man am naa force am mental moo mën a supporter yenn yi mais y a des femmes qui ne peuvent pas supporter yenn yi donc nañ leen bàyyi di leen stigmatiser mhm. la femme divorcée n'est pas n'est pas n'est pas euh, benn n'est pas benn poubelle mhm. am na am na conviction mhm. am na ay euh, am na lu mu bëgg am na fulla am na fayda donc ma koy lancer aussi à toutes ces femmes là. liggéey leen takk leen seen dëgg gëm leen seen bopp xam ni euh, fi ngeen di bëgg a yegg yéen kese yéen a fa mën a yóbbu seen bopp. te dara du leen fa yóbbu du dul fulla fayda ak jom. lépp lu ñu leen waxal bu leen ko déglu concentré wu leen seen bopp seen vie seen njaboot loolu laa leen di conseillé. macha allah muy message yu am importance euh, ci bàyyeekoo nag ci ki nga xamante ni moom mooy Mia nekk loo xamante ni à l' instant où je te am na ñu mu réconforté. tout à fait bàyyeekoo ni ci sa gémmiñ mm-hmm. ñu gën a amaat confiance en soi mm-hmm. Mm-hmm. redoubler d'effort xam ne mën na nekk mm-hmm. mën nañu avancer mën nañu euh, siggi avec la tête haute te loolu aussi dafa bokk ci li nga xamante ni yéen ay porteuses de parole ngeen yooyu dafa baax muy génn ci yéen alors ñu ñu gën a continuer tuuti rek euh, duñu toog ba jóge fii te duñ ci waxtaan parce que mi Mia juste après mu commencé sa carrière solo non seulement avec des textes yu riches yu très bien organisés avec benn réalisation bu extraordinaire dafa port vestimentaire bu bees boo xamante ni xamuñu ko ci woon mm-hmm. ci moom e effectivement dina indi ay questionnement euh, voilà vis-à-vis des Sénégalais euh, mais aussi ñu gis créativité avant may ñëw ci lu négatif yi nga mm-hmm. xam ne yenn saa dañ koy dégg mm-hmm. ma ñëw ci création bi déjà Mia ñëpp xam nañ ne dafa yëngu ci wàllum couture daf ko bëgg donc Ida bi yaa am ñawaloon nga sa bopp mais yi ñu gisaat ci tournée yi kan moo lay kan moo lay kan moo lay dugal ci roq alors euh, man euh, j'adore collaborer malgré que maa ngi si milieu bi di ñëw mais j'adore partager j'adore yeah. collaborer mm -hmm. parce que xel du doy mm-hmm. comprendre nga nit bu fekkee nga bëgg a avancer il faut ngay dispatcher say affaires. tout à fait dem si ay nit ñu lay. tout à mm-hmm. donc j'ai travaillé ak deux stylistes. macha allah kenn ki mi ngi tudd Cheikh Kounta. Cheikh Kounta vient de Tambacounda. ah macha allah il m'habille macha allah moo ma solal pratiquement deux tenues si concert Tamba bi. ok euh, je travaille aussi ak un jeune qui s'appelle Afchal. macha allah waaw lui aussi mi ngi def liggéey bu jéegu dayo macha allah. macha allah bu rafet macha allah. Mm-hmm. donc c'est des jeunes yoo xamante ne. ndeysaan dañ nii dañ leen war a. dañ lay dañ rafet macha allah <laughs> <laughs> donc euh, c'est des tenues de scène lañ may defal. tout à fait des tenues de scène lañ may defal. c'est mm-hmm. pas des tenues de tous les jours. déedéet on le met juste pour scène. Mm-hmm. donc euh, macha allah ñu ci def créativité bu dégg ja. Mm-hmm. dégg jéggi dayoo. dayoo <laughs> donc ma si kontaan parce que. dañ may defal rek ak ak. yéene waaw yéene création bu. extraordinaire sincèrement création bu extraordinaire ngay gis honnêtement. donc ma leen di remercier de passage. macha allah par contre sama danseurs yi. Euh, li ñu sol ci Tamba bi. li mhm. ñu sol fan yii man mhm. maa ko ñëw et tout. donc mhm. euh, tey tey plaisir de de collaborer avec ces ces jeune la là. ñu liggéey pour mën a jëmale suñu industrie kanam. parce que sotti si la ak def si la deux ans na ou bien trois ans na. noonu rek doon parce que bu fekkee ne tey danga nga jëmmal Sénégal. <laughs> bëgg yóbbu drapeau bi fu sori. <laughs> parfois bul bàyyi kenn. ki jaay kerem sax yenn saa dee ko boole ci biir clip bi muy jaay donc yooyu yëpp euh, bëgg yaatal la rek. esprit yaay loolu yàlla bu mu jóg ci yow ci barki bi Moustapha ñu ñëw tuuti nag parce que foo gisee lu bees bu ñëwee rek ci kanamu nit ñi <laughs> du ñàkk du ñàkk yenn saa yi nga gis koo xamante ni ndeysaan ñàkk xam moo tax muy analyser autrement mm-hmm. da ngay gis koo xamante danaan moom ne depuis bi mu génnee ci ay yam nekkoon ba tey dafa jël yoonu boppam c'est comme si dafa def ouf de soulagement léegi lu ko saf lay def ah, donc bi gën a indi coow li aussi mooy bi nga xamante ni dafa nekkoon doonu guddi li ah, je sais xam naa uh-huh. ah, j'ai compris mm-hmm. mais nag dafay baax parfois mm-hmm. tuuti rek pour Sénégal yi la bëgg man xam ne dañuy wax pour yàq xam xam ñooy tax ñuy wax mais ñi la bëgg te tout le temps ñu ngi xeex pour Mia waaw ñooñu tey lan nga leen di wax lu tax nga defal loolu tey caat tey caat bëgguma si woon wax je sais je sais je voulais pas en parler mhm. mais euh, tey il faut que ma ma wax ak ñi nga xam ne ma bëgg mhm. ñuy xeex mag ma ak euh, ndax man suba ngoon guddee bëccëg ñu nekk si réseau yi di wax di ma défendre tout chaque instant donc tey dinaa leen leeralal ci loolu vraiment je voulais pas en, en parler je alors euh, euh bi maa ngi jógee Tamba 2h du matin. Uh-huh. jógee Tamba 2h du matin war a dem jouer ji Goudiri. Uh-huh. oto bi ma dugg clim bi fay. Uh-huh. Ah, en fait yëre bi lu mu ànd dafa am benn gen bi nekk ci suuf. comprendre nga. te genn bi dafa am toile. <laughs> dafa am voilà dafa am toile <laughs> tout à fait. léegi oto bi tàng tàng boo xamante ne ma ne bàyyi ma dindi gen bi su ma yéegee ma sol ko ma dindi gen bi. far bu ñu yeggee sama xel fàtte na genn bi ma wàcc rek ñu filmer ma. donc tey c'est quelque chose que que man maa assume j'assume parce que mhm. man la ñu gis ma sol ko et si à refaire doo ko def waaw donc je vais pas être là à me justifier mhm. parce que parce que tey sama en conscience conscience am na conscience tranquille sama bopp quoi tu vois un peu mhm. donc tey loolu nu mu demee xëy na noonu la waroon demee rek euh, may dalal sama xelu fan si rek. ñi nga mm-hmm. xamante ni ma bëgg. Mm-hmm. ni leen a def ma ko par pour pour rien. Mm-hmm. pour pour def ma ko pour dara parce que ñu ma xam dëgg xam nañ ñu ma mel. donc du coup c'est c'est quelque chose qui est venu comme ça. et puis ma si euh, ma si euh, ma leen di jéggalu ñi ma bëgg. effectivement bëgg. ñoom laay jéggalu. bien sûr ñoom laay jéggalu wax ma ñeneen ñi nga xamante ne dañ ma bëgg. di xuloo di reyante ndax. pour man ñoom laay ñoom laay jéggalu si euh, si loolu te. du nekkul sama sago bu doonoon sama sago du demee noonu mais mm-hmm. circonstances yi rek moo ko indi et ma leen ma jéggalu bu baax a baax effectivement mu nekk yu am solo yoo xamante ne noonu la leen di neexee nag li nga wax nii noonu la leen di neexee te ñoom peut-être lay comprendre ba dañ lay layal foo <laughs> nekkoon bëgg dafa metti sérieusement donc euh, mu nekk yu am solo mm-hmm. korité bi jàll na amoon occasion ak ñi nga xamante ni aussi ñooy fan si parce que aussi ñoom nga doon seetaan ñoo lay seetaan te ñoo la bëgg parce que depuis boobu je pense que gisaguñ la ndeysaan waaw ba boobu ba tey maa ngi sug a génn waaw yow yaa yaa lii <laughs> ma nekk sama noppalu métti nga ne ma déedéet <laughs> dañuy waxtaan non xoolal fi ma la indi parce que serre-toi serre-toi ñun dañoo am classe ah, <laughs> donc euh, may euh, déwéne ci ñëpp di ñaana euh, ñaanal Sénégal uh-huh. yàlla na fi jàmm yàgg amiin yàlla na fi jàmm sax mm-hmm. Euh, yàlla nañu yàlla musal ci seytaane ah ñu tàppee xol yi doon benn. effectivement di baalu ñëpp àq. di baalu ñëpp àq. Mhm. baal naa ñëpp. <laughs> na la ñëpp baal waaw ah, non ñëpp baal. leen ko na ko ñëpp baal te ñaanal ko. donc yooyu dafa nekk yu am solo yu mënul ñàkk. Mhm. alors gën leen pare pare na. Mhm. Euh, ñu ngi jëm décembre incha allah yàggatul. Euh, Mia lan mooy quotidien désormais dès maintenant à compter ce jour. ah oui ah, gars yi bouquet nañ déjà. ci mois de juin bi. incha allah. mois de mai bi. Ah, gars yi bukkee nañu album bi ah. génn. <laughs> donc mais album bi dina bëri ay yëfa ki yëfaat de. Ah, album ay ay <laughs> xanaa bi loxo la mais xanaa yee ay tànk la. waaw nañ xaar la. ak mën na ci xaar ay duo. mais oui ay duo yu sax. doo ma ci ñamal. <laughs> li ngay saf parfois damay damay xaw a bëgg a di di yooyu di yooyu leen nar a neex. Uh-huh. yoo xamante ne c'est international. macha allah. Mm-hmm. ak yoo xamante ne. biir Sénégal la duo yoo xamante ne vraiment. Mm-hmm. bis bu ñu ko yëgee dina dina leen. mais mais mais dégg nga challenge bi Sénégalais yi génne. Mm. xale yi dañoo aay. man j'aime les Sénégalais. nee <laughs> nañu la risque la. <laughs> Eh, ragal du ko <laughs> mais <laughs> challenge bi xale yi indi tamit tey ma indi la ci nga daanu ah, euh, nee nañ Titi woyal na woyal na jeegi euh, woyal na ñi nga xamante ni dañoo nekk ci biir seen kër toog ne kenn du leen fa génne ah, ah. mais nee na yow woyal nga célibataire yi ay ah, de Samb woyal na njëkke yi bu <laughs> Sénégalais yi dañoo neex uh-huh. c'est non man ma koy ñamal ma ci tuuti ma xool loo ci jàpp ñamal ma ci ma xam loo ci jàpp lu tax parti boobu rek moo la neex uh-huh. macha en fait Titi. Uh-huh. ku ci ni Titi. ku ci mel ni Viviane ku ci mel ni Coumba Gawlo. Uh-huh. est des femmes de référence. macha allah de valeur c' est femmes de valeur. ñun jeunes yi.